de la république kenn ci. non dama ni la présidence de la république ñoom ñoo ko def et yaakaar ni yow boo ñëwee ci kër la moindre des choses mooy nga xool kër ga lan moo am lan moo fa manqué yaakaar naa ni je crois que yooyu yëpp tey li ko doon war a mën a defaral mooy dine euh, gis nga explication mën na comprendre mais justification baaxul nit ki du lu ñëw rek nga jéem ko justifier te aujourd'hui waa PDS du côté de Abdoulaye Wade acte yëpp dañ koy bëgg a justifier te yaakaar naa ne aujourd'hui situation réew mi fi mu toll mooy ñiy opposé wu def ko dans les règles de l'art ñi nga xamante ni ñoo nekk au pouvoir liggéey parce que tamit dafa am un contrat social un contrat moral mais yaa ngi yaa ngi waroo ci say wax parce que boo waxee si si boo ne ñiy opposé wu def ko ci règle de l'art alors que yow sa wax lépp mooy seen secrétaire général waru fee nekk dafa war a jógee waxuma dafa war nekk dama ni même bu nekkee ci dëkk bi comportement bi mu am man comportement bi bu dama ni comme bu moom mi ngi toog jàpp man dégguma ko mu wax dégguma ko mu def lu dul recevoir ay ay militants. Mhm. nga naan comportement bi mu am ban comportement. waaw amul benn comportement kon. ah non mais non non attends wax ma ban comportement. non dama benn comportement. non attends Pam Gagne premièrement. Euh, euh, yow woote na ni félicitation jóge fa génn pale bi la première semaine ça ne s'est jamais passé dans l'histoire du monde musul am. première semaine bi nga woote un congrès d'investiture pour préparer les législatives pour ton parti je veux dire que ce n'est pas xam nga euh, kii dafa am ku benn mag bu mu sa wax benn góor naw ni ko euh, sama xaritu doom dafa amoon soxna mu faatu euh, moom mu faatu est-ce que mën naa koo jël mu ne ko lu ci lislaam wax mu ne ko lislaam di aayalu ko waaye aada ak jikko ju rafet nanguwu ngañ Pape du lu mën du lu waay mën rek wala mu sañ ko rek def ko dama nit li ma xam te jàpp ko mooy dine Abdoulaye Wade nit ñi mu àndal mënoon nañ ko épargne ci lii mënoon nañ ko noppal ci lii parce que at yi mu am ku ko am looy dawati parti jaru ko man loolu laa gëm conviction bi ma am mooy di nekk man dama xam ci waa PDS ñi nga xamante ni quoi qu'on dise nag ñu ma naw lañu ñu ma respecté lañ ci seen wàllu dayo ci seen wàllu xam état ci seen wàllu mën a politique war nañoo mën a yor parti démocratique sénégalais mais dama ni la présence d'un chef d'état sortant dans un pays même en mais man y a il y trois mois dem naa euh, Paris mais bi ma dajeeg euh, euh, Giscard d'Estaing mais j'étais ébloui il vivait da doon vivre anonymement comme ku ci bokkatul génn ci nga gis François nu mu tëddee euh, Léonel Jospin benn euh, élection yi ba mu ko ñàkkee devant Chirac ci la bàyyi da ngay war a mën a arrêté. et conseil bi c'est pas c'est pas un conseil qu'on lui mais lu ñuy ñaawlu la li nga xamante ni ci comportement am rafetul. loolu war ko war ko mën a xam. te man man nag foofu lii nag maa ngi ko doon xaar ci un euh, politique pure et dure mais pas ci kenn koo xam ni mouvement citoyen la amee euh, ci koo xam ni citoyenneté am lay dund ci biir réewam yow nga am xalaat boo ci am maa ngi ko doon xaar ci keneen koo xam ni politique pure et dure la mais pas ci yow. non dama ni gis nga citoyenneté bi ngay wax no waaw moral moo koy lal. xam nga euh, li ñu wax sànq noonu xam nga par exemple quand je te disais que euh, waxaat la un peu ci baisse des prix bi pourquoi ñun aspect moral bi intéresse ñu aspect éthique bi intéressé ñu mooy dañuy wax ni est-ce que nit ki lu mu mën rek lu mu sañ rek ak lu ko yoon may rek war na ko mën a def. Mhm. je ne le pense pas. bu fekkente ni loolu ku ko am tu n'es pas un bon citoyen. d'accord donc je ne suis pas un. mbiru Cheikh Béthio Thioune mënuma ci bañ a dellusiwaat ndax dafa nekk actualité. Euh, te daf may fàttali ay propos yoo xam ne Macky Sall daf ko yëkkati woon ci campagne am mooy bi muy wax naan marabu kilifa diine yëpp ay citoyen simple lañu euh, taxawaay bii nga xam ni moom la taxawee xam naa ni ragal naa nga wax ma affaire séparation wala leneen waaye xam na am na lu ñu xam ci euh, ci ci pouvoir moom mooy chef exécutif exécutif donte séparation am na moom moo tànn ay ministre am moom ak premier ministre am donc ndax dëggalul kàddu yi mu yëkkati woon jàppee kilifa diine ay citoyen ba pare nag di jox ñeneen ñi ci des ñëpp ay signal yu fort. Euh, gis nga Pape Ngagne mbir moom euh, fi nga ci ni nga ci dellu siwaate nga ci dellu siwaate fi ma ci taxawaate laa ci taxawaat dama ni la tant que mbiru euh, Cheikh Béthio Thioune nga bëgg ma ci jël référence wala ma ciy wax du ma ci wax parce que dafa nekk entre les mains de la justice te yaakaar naa ni respecte justice war na woon a man tax duma ci wax maintenant bu fekkente ni da bëgg ñu indiwaat tamit lii suñu candidat waxoon euh, ma koy répété simple ak ordinaire ña doon commenté noonu ko ci yokk dañ ko laaj question bi fii au Radisson euh, excuse-moi ci benn hôtel ni ko lan mooy sa euh, diggante ak kilifa diine yi bu ñu boo faroo mm-hmm. mu ni leen kilifa diine yi ay citoyen lañ rapport yi may am ak ñoom mooy rapportu ma nekk chef d'état ñu nekk citoyen maintenant cër bi ñu leen war a jox ñoom war leen ko jox euh, ndax ay guide lañu dinañ leen ko jox man sama bu may dund sama euh, mbiru sëriñ maanaam sama vie religieuse wala spirituelle sama diggante ak sama sëriñ bis bu ma koy wanee caméra du fa nekk tele du ko wane kenn du ko fekkee pour bañ a gêner ñeneen ñi nga xamante ni bokk ñoo man gëm-gëm may revenir ni kii euh, euh, sëriñ yi bu ñu dul ay citoyen sénégalais mais xanaa ay citoyen burkinabé la lañu bokk wala ay citoyen zimbabwéen ma wax ni donc loolu li ñu ñuy bëgg tëkkale di ko tollale moo yamul man damay wax ni ba tey jii ma jàpp ci sama xel mu rafet ak ci sama euh, comportement ak attitude mouvement citoyen même bu fekkee dama bokk ci mouvance présidentielle mooy euh, séparation de pouvoir am na et que dans cette affaire là pour man affaire wu juste justice la affaire wu yoon la mhm. et que justice Sénégal war nañu am dayoo ak tolluwaay bi nga xamante ni amul kenn ku leen di war a mën a jox orientation bu ñuy jël. d' accord euh, Malick beneen ponk bi nga xam ne xam naa ni moom mooy nekk suñu waxtaan bu mujj dafay aju ci kàddu yi nga xam ni tukkee na ci euh, ministre euh, délégué du budget monsieur jàllo le ministre Diallo ci lu mu wax jëmale ko les caisses de l' état ba ñu bari ñaawlu ko ci koo xam ni njoxtoon nañu ne peut-être xam-xamam war na ba ñu teg ko poste boobu waru waruloon wax wax ju mel noonu que les caisses de l' état sont alors que ñu xam budget xam prévision. xam lu bari euh, lan la jublu woon ci loolu pour yow lan moo tax kàddu yu mel noonu jip que ba Sénégal ñu bari jàpp ni euh, kees yi dara nekkatu ci. ba xam man li may wax ci mbir moom rek mooy moom la ci jublu woon moom xëy na moo ko xam mais man ni ma comprendre te déggee ko laay wax may wax ni budget ku ne xam ne ni état amul kees gi nga xamante ni dañ koy takk te premier er janvier ñu dajale ko teg téye ko ñi xaalis baa ngi nii compté nañ ko temps la dañuy dem moom. ay recette la ay dépense ay prévision la mais damay wax ni euh, Pape ngañ bu dee yow sa kër da nga jël sa dépense su fukki fan ak juróom jox ko soxna si ni ko bis bu nekk ñatt téeméer la ñuy dépensoo euh, ñetti junni mi ngi nii bu ngeen defee ñetti fan moom mu lekk walla ci kër gi ñu dépensé euh, ñetti junni yi ci ñetti fan loo sa xel bañ a xam-xam mbiru euh, économie ak euh, mbiru finance war nga xam ni kon am nga euh, fukki fan ak ñaar yi nga xamante ni da nga koy taf yëngal maanaam fukki fan ak ñaar yooyu di nga ci gobar jaasi di nga ci fande di nga ci dëñe di nga ci bañ a lekk di nga ci bañ a naan donc yaakaar naa ni man compréhension bi ma def ci loolu mooy di ne que li ñu waroon a jàpp ni moom la ñu waroon a fonctionner durant tout la l'année ci ministère yi jàpp nañ ni que ci diir bu gàtt ñi fi nekkoon Euh, utiliser nañ ko euh, prévision yooyu def nañ ko ba nga xamante ni xaalis boobu même bu fekkente ni ñëwagul mi ngi ñëwit am na fi nga xamante ni bu ñëwee def koy fat ndax am na fu mu féete ba pare maintenant nag ministre du budget moom moo xam lan la jublu woon ci kaddu yooyu mais man compréhension boobu laa ci def et que noonu laa ko mën a interpréter. Hmm. ci beneen ponk bi euh, ku miin Youssou Ndour nga liggéey ngeen yéen ñaar hmm. liggéey ngeen ay at. Hmm. mu am département bu bu ñu ko denk muy tourisme ak culture mu amee ko. Euh, bi mu ko amee coow li bari woon na ci ay compétence am ak lu bari euh, lan nga ñu mën a wax ci nit ki. waa li ma ci xam-xam nga parfois dama koy wax benn jour suñ benn waay ni ma non intellectuel bu doy ni yow waroo wax nii dama am chance liggéey ak Youssou Ndour ma ni ko nangu dafa am solo nit di ko bëgg di du doy di ko yéene du doy di nga ko respecté du doy mais li gën a fort mooy nga nangu ma ni ko man dama nangu ni dimension Youssou Ndour dimension bu am solo la et je crois que Youssou Ndour dafa nekk un nom bu am euh, une dimension amplificateur amplificatrice autant pour moi c'est-à-dire que tey bu ñëwoon ñëw na ci benn ngénte ngénte la dootul ngénte lu ordinaire bu ñu ñëwoon dem na ci benn enterrement noonu donc yaakaar naa ni euh, bi ma waxee sama xat boobu pour wax la dimension. mais bu ñu dugalee ci benn gouvernement. non déglu ma expliqué la man léegi euh, li ma jàpp ci loolu Euh, bi ma liggéeyee ak moom tukki ak moom euh, dama jàpp ni euh, culture man ma xaaruma ko trop ci culture culture c'est vrai que dina ci yëngu mais fi nga xamante ni moom la mën a indil Sénégal indi ci lu am solo te loolu nekk ay rentrée de devise pour ñun mooy le secteur touristique kon wute nga ci ak ñu bari ñu jàpp ni ci culture bi nekk domaine am non xam nga xam nga culture en vérité un pour cent xaw ma deux pour cent du budget national moom mooy culture te dañ koy jël di ko jox booy cette culture on n'a pas une culture économique certes mën na ci liggéey mais li ma xam mooy lii ñu ko jox bu ñu dawalee quelque temps ak li ma xam ci moom miin ko ci mën na ci def ay résultats yu jéggi dayo bu àndee évidemment ak équipe bu mu war a àndal déglu ñi mu war a déglu et puis yaatal ko ba nga xamante ni vraiment dina ci am ay résultats parce que gëm naa ni que moom am na euh, nu mu mel mooy c'est un bon manager maintenant le problème qui se pose bi am ba des mooy dina xam na ko moom parce que man ba léegi damay échanger ak moom gérer privé ak gérer public du benn gérer euh, carrière musicale ak boobu du benn mais bi ma waxtaanee ak moom jort naa ni c'est un homme assez préparé te ma koy wax tey Sénégalais Youssou Ndour pour l'avoir côtoyé un peu lu mel nii yàgg na ko préparé wu psychologiquement et yaakaar naa ni dina ci am ay euh, résultats yi nga xamante ni euh, yu am solo la dans tous les cas ce monsieur Mbaye maa ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay fay voilà merci beaucoup Maodo Malick merci mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak euh, Maodo Malick Mbaye bu euh, euh, mouvement citoyen gëm sa bopp bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar moom la ñu recevoir oon tey ci seen émission Faram Facce ñu koy gërëm bu baax ci wuy si bi mu wuy si mbokk yi leen di jox daje incha allah ci beneen numéro Faram Facce bu ci yàlla andee jërë ngeen jëf. tendance à s'amuser avec des choses qui sont importantes. Vous avez constaté qu'à la place des militants, nous sommes tombés sur un rideau de forces de sécurité chez nous.